Thank you. nguurug Sénégal di tiitaroo ay infrastructure ci lu jëm wàllub sport moom waa Mbàkke ñoom waruñu caa bokk dañoo war a banque seeni loxo ndax loolu li koy firndeel moom moo di ne dëkk bi la di Mbàkke amul benn infrastructure bu jëm ci wàllum sport boo xam ne nii gone yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey tàggat seen yaram dañ fi mën a tàggat seen yaram du stade de football bu baax du ab salle de basket waaye itam du salle taekwondo wala benn infrastructure boo xam ne nii ab jeunesse mën na caa tiitaroo wala itam ku bëgg tàggat sa yaram nga daal di cee mën a dem yooyu la ay jamono sax déggoon nañu fi maire bii di Abdou Mbacké Ndaw muy fësal ne stade Nelson Mandela daañu ko fas defaraat waaye itam gën koo méngaleeg ba ndëgë ni àlla ngi ne sendaw stade bi jamono ji mënees na koo méngale ak ay tooli pataas daanaka boo tullee bal lu mat ñetti kilos suuf daal di dem te loolu lee nekk ay jafe-jafe ci joueurs yi nga xam ne nii ay joueurs yu jàmbaar lañ mën di nemmeeku fii ci diwaan ba Bawal bu weesoo li nga xam ne moo jëm ci jafe-jafe pelouse bi nga xamante ne nii ñëpp nemmeeku nañ ko vestiaire xamante ne nii staatu football la daanaka buñ ko génnee sax ci biir réew mi doomi Mbàkke yi dañuy am gàcce ci wax ne lii mooy stade Nelson Mandela bi nga xam ni foo tourné di ko dégg ci rajo yi ñu nekk jamono nawetaan compétition yi daal di ubbi phase nationale yi ñi nga xam ne moom moo di ñaari équipe yi Mbàkke yi daal di cay dem fële ca Kolda lu li nag war a tax nguurug Sénégal war a xoolaat boppam daal di jox Mbàkke li mu moom waaye itam delloo ko li xam ne nii moom la moom ci lu jëm ci wàllum tàggat yaram bu ñu defaree ay infrastructure ci lu jëm ci wàllu tàggat yaram fi la ci Mbàkke defaluñu ko Mbàkke dong daanaka dañu ko defal département bi yëpp ndaxte waa Touba gone itam fi la tàggatee seen yaram statu football bi la di Nelson Mandela ñàkk a méngoo gu mu ñàkk méngoo ak jamono waaye itam ñàkk a méngoo gu mu ñàkk a méngoo ak football ba nga xam ne fa la ñu koy defee daanaka bu làmb amee da nga koy jaawale ak ub arène boo xam te ne nii fa la mbër yey bëree mënoo xàmmee statu la wala ab arène la kon jamono ji jot na sëkk jëwriñ di gëstu département bu Mbacké ci li nga xam ne moo jëm ci ay infrastructure ci wàllum sport waaye itam mu daal leen di gën a xel te xam ne ay ndaw yu am talent ñoom ñoo fi nekk waaye ay ndaw yoo xam ne ni yu bëgg tàggat yaram tey am ay ndombay tànk ci bépp compétition ci lu jëm ci wàllum karaté basket football ak li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum làmb ci bépp xeet ci mboolem réew bu Sénégal département bu Mbacké da cay am ay ndaw yoo xamante ni dañ cay participer kon jombul ne buñ leen defaroon ay infrastructure waaye gën leen a yokk doole ci lu jëm ay bërëb bu tàggatkaay yaram kon daañu dégg doomi Mbacké yi fu gën a sori ci lu jëm ci wàllum tàggat yaram bi ci réew bu Sénégal waaye itam ca bitim réew